xam ne lii la lislaam tànn lii la lislaam bëgg ci jullit yëpp àndu nekk benn bàppamaa yi Cheikh def na ko ci Soudan ak li ko wër yëpp continent yi wër Soudan yëpp bàppamaa yi def na fa ay tournée yoo xam ne lépp jubale jaamu yi rek ñu nekk ci jaamu parce que lislaam jaamu la oote la paix comme ni ko jaamu yàlla yi tànnee ba nekk jullit kon maa ngi ndokkeel umma islam bi waaye maa ngi ndokkeel jullite àddina bi yëpp ak fu ñu mën a nekk ak këri diine yëpp waaye maa ngi ndokkeel pays Mawlana Cheikh Ibrahim baay Baye radiyallahu taala anhu di ci jiital xalifatu am ak mboole rakkam ñu mag ñi ak ñu ndaw ñu góor ak jigéen waaye di ndokkeel ki nga xam ne tam mooy suma papa mooy imaamu akbar ci taxawaayam bu rafet ci jumaa ji ci julli ci àddina bi ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim Niass waaye ci mboolem diine islam rek parce que mobilisé na fële ci Medina Baye ne ñëpp nañ génn pour tertu ki nga xam ne mooy xalifatu am ndaxte liggéey na liggéey bu rëy boo xam ne jar na tertu ko parce que lii nekkul lu ndaw lu te àddina bi yëpp bàyyi jagleel ko kenn ci njabootam muy xalifatu am loolu doy na mbégte nekk na fierté julliti àddina bi yëpp waaye rawatina mboolem fu taalibe bàyyi nekk tey tey bis bii sa fierté la loolu moo tax ñun ñëpp ñuy àndandoor ak mboolem àddina bi yëpp waaye jullite àddina waaye rawatina taalibe Baay yëpp ñëw ànd ak njabootu Maolana Cheikh yop yëpp tertu ki nga xam ne mooy suñ sang bu tedd bi suñ waajur bi nga xam liggéey na liggéey bu jar ko ñu tertu ko tatagal ko dalal ko gunge ko ba ci màkkanam loolu moo waral tey sama teewaay man wala gisee Dakar bëri nit ñi looy wax waa Kaolack ragaloo Dakar gañe Kaolack waa xam nga Dakar mo mënut a gañe Kaolack <laughs> parce que Kaolack moom fa la bi ne parce que foofu la Maolana Cheikh Ibrahima Niass bàyyi radiyallahu taala pour tëdd foofu la bàyyi tëdd foofu moom euh, maa ngi wax rek ne dakaar ñoom mobilisé woon nañ hmm. vraiment dakaar def nañ mobilisation boo xam ne bii na rafet na ñëpp génn nañ taalibe génn nañ jullit yi sax génn nañ parce que lii du ndamal taalibe Baay kese ndamal addina bi yëpp la waaye ndamal jullit yëpp la ñëpp génn nañ pour gàttandu sang bu tedd bi kon Kaolack itam rawatina Medina Baye ak li ko wër ak Saloum yóbbu nañ génn ñu tertu sang bu tedd bi euh, gàttandu ko dalal ko parce que jar na ko liggéey na ko li président yëpp waroon nañoo génn sax pour ndokkeel xalifatu am parce que liggéey na liggéey boo xam ne tën na sax président yi tën lépp ñëpp dem nañ mais kenn sottiwut mais bàyyi ci loxoom la ko jaarale parce que bàyyi nag mooy la solution na ko gars yi xam asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw waa alfayda tam bisimilah waa alfayda tam maa ngi leen di gërëm bu baax seen taxawaay que man alfayda sama kër la damaa bëgg Alfayda directeur bi ba ci ñi personnel maanaam ñu fay liggéey ñëpp sama njaboot lañ bokk maa ngi leen di ñaanal yàlla ak mboolem média boo xam ne teew na fi rek. mën nga tudd ko Bour News. Euh, Bour bu baax bi Bour News. Euh, Bour News télé bu baax bi. voilà télé bu baax bi comme wal euh, comme Walfadjri comme Alfayda comme ñëpp daal. fay du Fayda TV Kossy TV maanaam Baye FM maanaam télé yëpp chaîne yëpp. média yëpp macha allah maa ngi leen di ndokkeel waaye nag Alfayda dafa nekk ndey télé yi parce que moom moo dëkk pay bi mooy Alfayda kon maa ngi ndokkeel ay fayal ba dërë yéen jëf waa Alfayda asalaamaaleykum wa rahmatulahi sukran jërë ngeen war ngaa fay de maire